tukkal ak laay biris li ndeysaan tukkal ak laay biris li tukkal a ngi door ci suuf tukkal a ngi door ci suuf laay biris li ngi wut ngemb kenn du wax ki door de ki daan la wax tukkal a ngi door ci suuf laay biris li ngi wut ngemb tukkal sa loxo fi mu jëmoon baaxul bu ko fa dañ lay daan tukkal daanu nga dangay daanu daanu nga daanu nga daanu daan na